salaamaaleykum mbokku internetu dakarnet.com comme mu ñu koy defee saa su nekk euh, ñu instant dañoo nekk ci événement bu ñu nee événement xel yëpp day nekk ci Korité parce que gars yi ñu ngi koy waaj ñu def rek lu ñu dugg ci marché bi waxtaan ak gars yi parce que événement événement wu ñëpp la téer bi ci la bokk jaaykatu dàll bi ci la bokk meseri bi ci la bokk lu ñu defee lu ñu damay ànd sama gars yi ku ci mel ni ak Toumane dugg ci biir waxtaan ak gars yi. ba ci kanam gaa ñu leen di ah, ñu leen joxaat rendez-vous après ci kanam. soxna si ñu leen di di la ziar. ñoo ngi lay fay bu baax. dañ ñëw fekk la ci sa asile gis la ngay ñëw lu rafet macha allah ah, ñu doon laaj tey événement bi nan nga ko dundee. waaw tout d'abord ñoo ngi lay nuyu di la dalal di kontaan ci li nga def sant yàlla rek loo fekkee batal ko rek alhamdulilah ci tegu aha ñoo. ñoo ngi événement bi nag. Ah, événement bi nag ngeen ko dundee bu daaw bi ak bu ren gis nañ ne bu daaw bi Covid bi moo xoo moo moo teewoon lu bari ñoo doon laaj ak bu ren bi ban maam ban différence la am. waaw nag am na différence parce que daaw ñoo ngi woon ci euh, Covid bi mu metti woon lool nag nit ñi euh, toog seen kër dem lente bi ak dikkalante bi bokkul moom nag dafa mel ne nag. moom la gaa yi nam bugg koo fay ci korite bi dëkk bi gaa nag amul xaalis moom comme nan daan liggéeye sans événement ak léegi bokkatul mais nag ñoo ngi sant yàlla bu baax bii paa yëngu na nag yëngu na yëngu na. client yi ñu ngi ñëw. waaw suñuy clientèle nag c'est clientèle yi nga xamante ne la du clientèle évétement toujours ci kër gi la ñu bokk kon nag ñoom toujours lu mën a xew rek dañuy ñëw. muy pandémie bi beeg ak bii lu xew dañuy ñëw parce que nit da am base te ñoom euh, suñuy clientèle ñooy suñu base ba toujours que ne lu mun a xew rek ñoo ngi ceeg ñoom di liggéey macha allah mais nag xam ne ne ren neex na par contre ak daaw dëkk bi nag moo xaw a tagga témbe rek tax dañuy xool ne ci lu nu jóge mais sant yàlla daal comme li may wax loo tombee ba fekk ko rek ñu boole la ci sant yàlla ndax ñu ko uute fekkewuñu ko te bu ñu gis ne événement patron yi dañuy sonn dañuy fanaan euh, ñi ñu xamul sax dañ naan ñoom ñu ngi ci àdduna lu ci biir te booy xool euh, demeewul noonu ñu euh, ñu doon laajte nan ngay dundee ak say tëyër parce que nekk patron yor say ñu lay ñawal yombul. waaw loolu nag moom li may wax ne chaque jour rek dafay metti trop trop trop trop sax parce que soo xoolee ne yaa ngi nii jaaro sax takkuma ko te nii laay toogee ba fajar di liggéey bàyyi sama kër samay njaboot macha allah. ñëw nekk ak téyeeri kon famille la famille bi nga xamante ne da ngay ak ñoom temps bu bari di sant yàlla nag bu baax ndax li dal yeneen téyeeri mën naa ne man gaa dalu ma ndax pendant douze ans yi ma def ci métier yi téyeer yi ma nekkoon ak douze ans ba léegi ñoom laa nekkal. des fois daal teg moom xëccoo ba fii des fois vraiment dina am foo toll foo xam ne tamit foo ngeen xëccoonte jàppal lii demal lii. noo amu fi nag macha allah wallaahi amu fi. duñu fausser client parce que dañ lay ñëwal au temps soo xoolee ne tey suñu liggéeyee ba tey ba suba ki suba client yi ñëw jël si seen ñëw comme ni ñu leen tegee parce que pare nañu amul xëccoo parce que ku nekk xam na li nga war a def soo xoolee man maa ngi ci bitigu prêt à porter bi tailleur bu mag bi maître tailleur bi moo ngi ci biir te ak élève am yi di leen ñawloo ñuy def kon looy gis ordre la rek amul discussion de <laughs> discussion bi moom bariwul. ok ñu ngi lay jaajëfal kàddu rafet na macha allah. waa merci beaucoup di leen ñaan bonne continuation yàlla teg loxo ci seen site bi macha allah parce que lii tamit day yokk nit jom day tax nga gën a jéem kon yéen ñi ñëw nag bàyyi seen soxla ñëw di ñu betti ci biir palaas yi di waxtaan ak ñun di ñu delloo si pour nit ñi gën a xam suñu liggéey tamit ñoo ngi leen di gërëm di leen sant te seen euh, inter seen sit bi fi mu fi ngeen bëgg mu yegg yàlla na fa yegg. ci doole sëñ Fallou yàlla mun na ko te da koy maye rek. <laughs> dafa dañoo ñëw tey di laaj événement bi nag ngeen ko dundee par rapport daaw corona bi mu mu mu mu yàqoon lu bari ñoo doon laaj ah, bu daaw bi ak lan mooy différence bi. waaw ah, waaw sant yàlla xam nga bu daaw beeg bi moom différence bi mooy daaw daf ñoo fekk ci feebar boo xamante ne nii dafa metti ci àdduna bi ñëpp yëgandoo ko muy crise bu doy waar. ren nag yàlla suturaal ñu ah même buñ ci génnul ba mu jeex tamit presque tuuti moo ci des. ñu ngi sant yàlla bu baax ren moo tane daaw parce que daaw moom metti woon na ci ñëpp mais sant yàlla rek waaw. aussi tamit ñu gis ne nga woor di ñaw loolu noonu ba ba ban ban difficulté la am ci téyeer yi quoi des fois du ñaax ngeen xuloo ndax weeru koor gi loolu na ngeen koy dundee seen biir. waaw ah, mais non loolu du dara sant yàlla rek xam nga koor moom gars yi comme fii genre faale ni ajaambéri. day naqari dara sant faal ñoo ñi nga xam ne du añ <laughs> du naan. da leen di xaw a sonal tuuti mais sant yàlla bu baax rek sant yàlla bu baax gars yi nag dinañ xaw a naqari deret ñu mel ni ay mbay xëppoo papa koo ci tudd mu song la histoire <laughs> kee moom yanaa maar laa ko tuddee ci koor gi kële <laughs> waaw moom yanaa maar waaw day geer rek moom day geer rek moom day geer rek yaa ma gën a xam wante daal sant yàlla bu baax a baax a baax ndax euh, koor la événement boo xamante ni nii nag yaa ngi añ di naan di def lépp moo daax mais bii tamit day gën a gaawal sa liggéey rek ndax dootoo am benn temps bu du taabal beeg machine bi rek waaw. mais ñu ngi ñëw. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax ndax. bu góor beeg bu góor beeg bu jigéen. waaw ñun ñaar yëpp la ñuy ñëw ñun dañuy ñawal góor ñi di ñawal jigéen ñi. ñoo gën a ñëw. jigéen ñi. ñoo gën a ñëw waaw a ñëw waaye bëri tamit ay ñawu góor nii ci korité bi quoi bëri na ay ñawu góor waaw. mais nan nga dundee événement yi. ah événement bi sant yàlla rek sant bu wér de par rapport ak daaw nag ndax ren sax moo tax ne daaw ndax daaw boo gisee moom mu ñu fekk ñu nekk ci feebar ñu tëj ñun ñëpp mun ñoo fenn mais ren moom ñu ngi sant yàlla bu baax moom ñu ngi sant bu wér a wér. client yi ñu ngi ñëw. ah client yi waaw ñu war a ñëwee comme par rapport ak événement bu njëkk waaw ah, ndax ren boo xoolee ñëw jigéen moo ëpp te ñëw jigéen ay ñaw xale la à saa ñëw góor yi ah. mais mais mais weeru koor nañ leen dundee fii seen atelier bi ambiance bi fii nii. fii nii weeru koor gi xanaa neex rek sant rek ndax yàlla daa def ñu ñu fi nekk dañoo xas a déggoo te buñ déggoo moo tax saa day neex mooy xam nga rek koor gi moom yaa ma gën a xam. ñu gis ne nga war ba ngoon jot xam nga mu metti nga toog ci machine bi ñëw euh, loolu yéen nan ngeen koy dundee. mais yaakaar naa jamono ji nag ñun loolu mis nañ ko tàmm nañ ko. waaw ndox nekkul koor ren la ñuy soog a woor di ñëw waaw yàgg nañ def loolu waaw ah, xanaa papa daal ak zaal. waaw ñoom daal ñooy woor saa di saalit. yow nag. man non man moom damaa ñeme koor ñoo fi ci koor gi. mais est bëggoo nekkul da nga bëgg a wax sa bopp bëgg a zaal doo nga moo fi woor di tàngal ngay wax moom yuuxu tàq ak yooyu. waaw événement bi de gis nga de ñu ngi koy dund ci freedom ndax boo xoolee événement yi passé muy 2020 bi xawoon na takkar naa si xawoon na métti tuuti ndax mbas bi wàccoon ci àdduna bi laal ñëpp mais ren gaa lu war a ñëw 100 pour cent ñëwul même bu dee 80 pour cent ñëw na sax alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax comme lu woon 2020 nekkul 2021 ñu ngi sant yàlla daal bu baax mais mais mais pourquoi ñu ne yaag saa waay yéen sax du yéen ruube atelier bi quoi boo nu waree day na xuloo coow li affaire yooyu. non booy dañ maa yëpp booy dañ maa yëpp dégg naa ñu may tuddee ay yaanaamaar damaa bëri li may kaas waaye wóor boo wooree nii gars bu ko boole yenn coono yi mooy loolu lu la lu lu la xoos rek da ngay mer lu la xoos rek da ngay mer mooy. loolu looloo nga yëngal. loolu tax gis nga yëngal bi mais du ñàkk nag du ñàkk faa may yëngal booy xam nañu maay seen patron. si nga nekk ci aar bi di way nga ñu gis la bu bu bu bu way bu ñëwee da nga dem jox ko ci ak lu moom gisaa tamit aussi nga nekk téyeur tamit di ñëw loolu nan nga mën a booleeg ñaari yëpp. waaw ah, man na wax dëgg yàlla téye bi laa njëkk a mën ko woy bi ndax ba may jàngi école bu ñu musaana tëj damay dem ci atelier bi commencé di suivre di suivre di suivre ba yàlla def te métier bi jiitu way bi waaw ñu koy sant yàlla bu baax di way bi. ak téer bi ñu koy sant yàlla bu baax. mais saa jamono yuñ toll buñ la ne woon kaawaay nooy non jamono yuñ toll moom ma ne woon kaawaay da doo ma gis. da ah. da may ñàkk doo ma gis. Ah, événement yi événement yi xam nga damay jeex na rek ñaan yàlla comme que dugg nañ ci alxam bismillahi rahmaani rahim nañ ci génn alhamdulilahi rek. jigéen bàyyi sa euh, bàyyi sa njaboot ñëw toog fi daan sa doole ñu ne daal loolu tey gam euh, lan la def ci yow quoi maanaam. dëgg la dama dañoo ñun jigéenu Sénégal dañoo am jom bëgguñu ku ñu yóbbaale dara dañoo dañoo ñeme ñefe bëgg seen bopp. ban heure ngay wàcc. man kii damay bu dundee événement propos bu daaw Covid bi ak bu ren bi nan nga ko dundee. ban la alhamdulilah ren moom dañuy sant yàlla bu ñu fekkee jàmm ñu tal Euh, ba yàlla suñu borom du ma ne sax fekk ñu Covid mais xaw ñu ko wàññi wàññi ko tuuti daal waaw ak restriction yi ñu ci defoon yëpp ñu wàññi ko di santaat yàlla ren bi ñu amee benn liberté bi di sant yàlla mu gën a yokk rek Covid gën fee jóge rek bu ko def yeneen événement yi dàq bu ren bi comme comme bu ren bi ni ni ni mu dàqee bu daaw bi quoi di ci sant yàlla wér-wér. mais clients yi ñu ngi ñëw par rapport daaw. alhamdulilah ñu ngi ñëw clients yi moom ñu ngi ñëw bu baax mais li ci xaw a particulier cest mooy ren moom bagage dafa amul quoi cest à Covid bi li ci doon am ba léegi da ciy amaat mais c'est-à-dire bagage yi nit nit ñi doon am na accès di jot ba tey dañuy topp quoi ndax comme moment bi ni mu demee kenn mënul génn. Euh, voyage yi gars dañ ko arrêté ba léegi boo demee doo mën a dem da ngay toog fi yónnee on sait jamais da yónnee parfois li nga bëgg duñ la ko jox bu ñëw tamit da ngay obligé jaay li nga yor loolu tax quoi mais alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bagage manqué na mais ñu ngi obligé di gérer client yi yenn saa mu xaw a métti mais alhamdulilah ñu ci sant yàlla bu baax daal. gisee tamit événement day métti nga bàyyi say mbokk ñëw di liggéey par rapport est ce xam euh, depuis boobu léegi ngeen ñaata ñaata jour ngeen commencé fanaan. ah non pour l'instant commencé guñ fanaan mais dañu guddee dañ fi nekk ba minuit une heure euh, en même temps sept six heures la ñuy yeewu wala si sept heures. bu ñu xëyee daanaka toute la journée duñ toog malgré ak koor geeg yëpp mais alhamdulilah dañu sant yàlla daal ñu ngi sant yàlla bu wér a wér ndax loolu lépp lu tax ñu koy def mooy bëgg a teral suñu waajur et mu nekk loo xam ne si nii faratalu ñun parce que suñu borom moo ñu ko digal bépp kii da nga war a góorgóorlu liggéey liggéey dafa bokk ci jaamu yàlla ñu ngi ciy sant yàlla bu wér a wér nag. même tey ñu gis ne nekk ci événement te ku ne événement wax korte ñu ñëw seet la gis garanti du rafet macha allah ñoo doon laaj nan nga dundee événement wu daaw ak bu ren parce que daaw gis nañ Covid bi moo tax lu bari dafa mën nañ dafa taxaw ñoo doon laaj lan mooy différence bi ak bu ren. waaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm diggante daaw ak ren moom daanaka euh, ren moom moo tane daaw waaw parce que daaw moom Covid bi métti moo taxoon affaire yëpp daal di métti lool ci ñëpp mais yàlla dimbali nañu ren affaire yi moom mi ngi doon kii ndànk-ndànk. parce que dinañ mën a préparer di am yaakaar tabaski pour liggéey bi mën a gën a dox daal ni mu doxee woon waaw incha allah moom yàlla dina def xéwal daal parce que baax na daal baax na daal is waaw. mais est-ce que ñu ngi leen euh, quoi. waaw clients yi ñu ñëw ndànk-ndànk rek xam nga clients yi tamit euh, Covid bi moom ñëpp la laal léegi nag euh, dañuy préparer waar rek ndànk-ndànk pour mën a ñëwaat comme liggéeyaat seen liggéey comme mën a def comme nañ daan def rek bu njëkk. parce que Covid bi moom daanaka bi mu ñëwee dugg si biir lépp lépp lépp la laal commerce beeg jënd ak jaay beeg teer yeeg ñëpp la laal mais nag comme yàlla dimbaliwaat nañu ba euh, yóbbuwuñu rek bàyyi nañu fi euh, te ñu ngi ak suñu expérience euh, gëm suñu bopp tamit war a liggéeyaat xëy na yàlla dinañu defal tawféex ba li ci jëm suñu kanam lépp yàlla defal ñu ban mën a amaat lu ñu amoon daal waaw ba client yi di ñëw ni daan ñëwee di dajaloo ni daan dajalee mais yàlla baax na daal. waaw ah. mais aussi est-ce que mën nañoo xam ah, ban jour ngay xëy ak ak ban jour ngay wàcc ci événement yi fu mu toll nii. waaw ñun nag ñun suñu programme na daanaka du changé waaw sept heures la ñuy xëy euh, ay kii la ñuy wàcc ay zéro heure waa heure boobu rek lañ daan wàcc effectivement comme heure yi ñu daan wàcc rek la ñuy wàcc heure yi ñu daan xëy tamit la ñuy xëy parce que effet affaire yi moom daanaka su dee neex da ngay dem su dee naqari tamit da ngay dem. te yàlla defal nañu tawféex daanaka ñu ngi sant yàlla bu baax nag vraiment ñu ngi sant yàlla bu baax affaire yi moom mm, macha allah daal yàlla def na tawféex daal baax na lool macha allah. waaw ñun moom as ndongo la dañuy sant sëñ Tuubaa rek ñun moom dañuy sant sëñ Tuubaa tey puis ñun dara jombuñu tey puis dañuy liggéey daal moo ñu war liggéey daal moo ñu war tout le temps ñun chaque année fii la ñuy dal fii presque fii laa màggee fii laa yore waaye dëkkuma fi waaw ñun liggéey moo ñu war te liggéey lañ gëm. liggéey daal lan gëm quoi saa su ne événement nag saa su ne ak nu muy ñëwee mun nga ñëw mu neex mun nga ñëw mu naka waaye tamit ren jii dafa tombé loo xam ne dëkk yëpp ko am muy feebar coronavirus bi il faut ñuy comprendre nag doomu aadama doomu aadama yi bëgg nañ waaye dañoo yorul doomu aadama yi bëgg nañ waaye dañoo yorul waaye loolu yëpp dañ koy sante Serigne Touba rek sante ko yàlla suñu borom te amaana mënoon a gën a metti waaye ba corona bi jàllee ba léegi daal ñooy sabablu saa su ne comprendre kon loolu ab cant la daal. client yi ñoo ñëw par daaw. waaw client yi moom tellement ñëwuñu client yi moom ñëwuñu événement bi moo gën a dëgër si événement yi. événement yi ren yi. événement ren jii moo gën a dëgër si événement yi waaw gën a na fi metti waa événement boobu moo dàq événement bi moo wal muy daaw. aussi comme ni nga ko waxee nga ni yow da ñëw fii rek pour daan doole ñu gis nga bàyyi sa njaboot ñëw di fanaan di di di di daan sa doole ñoo laal loolu noonu yow lan nga ko yëg la maam nga yëg boo ñëwee fii toog bàyyi sa njaboot di liggéey fii. waaw loolu ab doole su ñun ndax man xaalisu commerce lañ ma ngéntee ndax amaana fii tey ji dama doon ñëw Pikine ñuy jaay talon ñàmb vingt ay doomu aadama man jaay nañ ko sama mag bu jigéen. affaire bi metti ma tellement ma ne damay dugg si commerce ba ma duggee si commerce yi trouvé solution yu bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri ba ma ko trouvé solution yu bëri ma ne ne comme man sama doole matul te samay nit nekk nañ fi ku mel ni jëmm jee taxaw rek maanaam daf may jox ay dàll yoo xam ne tey ji maar day taali waaye loolu rek ab sant la tey ji bu ma ñëwee muy dërëm muy ñaar dërëm lu ma si am mu doy ma wallahi azim ma jéem ko jaay lu yomb lu doomu aadama yi bëgg lu doomu aadama yi tollool ñun moom déglu ñu wax as ndongo lan ay taalibu sëñ Tuubaa lan man ba événement yi commencé ba léegi dix jours ba léegi ma tànk sama biir kër. ay fanaan ay fanaan suuf taal man ak sama gars yi waaw ñenn ñi dañuy dem tëdd ji ñenn ñu toog ceene ku mel ne yore jëmm ji taxaw tey ji moom maanaam mooy lépp maanaam kooku moom la doon animé ba may nekk ndaw ba nii may wax ak yow animation boolatuñu dafa nekk sama mag nekk sama papa nekk sama nijaay nekk sama xarit nekk sama lépp kii moo ma a sama mag bu ma bokkoon ndey ak bàyyi jamono gi ma toll barke sëñ Saaliw ndax amaana dafa liggéey si man lu bëree bëri bëri bëri bëri bëri bëri barke sëñ Saaliw ndax événement ren jii ndaru mu woon ñëw moo ma topp ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal ba ma yegsi muy jëm ji toog barke sëñ Thial muy jëmm ji toog jëmm ji du animation moo ma booleeg moom barke sëñ Thial Mbacke sama mag la ñoo bokk nday bokk bàyyi. di la rafet na macha allah. waaw di leen ñaanal nag yéen ngeen am jàmm am wér gi gudd fan. ndax euh, maanaam doomu aadama saa su ne da xool tey jii liggéeykat yi di leen mun a wane kon yéen ñi gàcce ngaalaama jàmbaar ngeen yal na leen yàlla lafal cat. seen liggéey bi ñu yóotu nii yàlla leen yàlla may télé bu gën a rëy si télé yi mu siiw ngeen ànd ak fekkee ak tal ñun moom as ndongo rek lan saa su ne moom la yore taalibe Sëñ Tuubaa yàlla leen yàlla taxaw yàlla leen yàlla jàppale jaajëf. gis ñu ñooy dugg saa gis la nga bi di ko gérer waaw ñu laaj ñu gis euh, événement daaw mu metti woon trop yaa ma gën a xam quoi maanaam a euh, ci à de Covid bi yëpp taxaw ñu laaj na nga dundee événement daaw ak bu ren. événement bu daaw bi moom metti woon trop. mais ren moom sant nañ yàlla bu baax parce que li ñu am ren amuñ ko daaw parce que daaw amul woon teg table amul dara amul woon liggéey presque mbaa mbaa boobu ñu ngi nekk si plein de Covid bi mais ren moom alhamdulilah tane na peut-être nag metti na ndax bagage amul dara amul xaalis amul dañuy nencee nii rek te affaire yi moom metti na trop trop mais xam nga lu mënul ñàkk faaw mu am ñoo ngi sant yàlla nag bu baax par rapport ak daaw quoi. mais mais est ñu ngi ñëw ñu daan ñëwee. waaw client moom ñëwul ñu daan ñëwee mais ñu ngi génn ndànk-ndànk xam nga dëkk bi est bi amul xaalis mooy loolu loolu mooy problème bi ñu ngi génn ndànk-ndànk. mais ak place bi ngeen yor ne macha allah est-ce que guddi gi doon am problème sécurité. non place bi nag guddi gi dinañ xaw am problème sécurité mais comme ça par équipe équipe la quoi ñu buñ seeree tay fanaan vingt quoi trois personnes léegi tumuroo ñeen dañuy dem ñibbi. yeneen trois personnes seerewaat noonu lañ koy mencee ba événement bi jeex ins bi moom. est-ce que nga xam tamit ah, depuis kañ ngeen commencé fanaan ba léegi. ins bi événement bi buñ desee ay parce que ñun dañoo laal rek buñ desee dix jours buñ desee ay dix jours lañ ko teg suñ table buñ amee neuf jours lañ commencé fanaan xam nga bagage fii mbedd la espace bi mooy loolu sécurité boo xasee lal say bagage faaw nga commencé fanaan du ko sécurité sa bopp ba ko rek événement bi jeex.